تركت ما كان لي بقي مبتغيا cinquante mille dollars. quatre cent cinquante mille dollars di deux cent dix millions de francs CFA moom la ñu jëndee kër bi li nga wax léegi rek Serigne Mamor loolu woo mu ba ñu ñëw mu wan boppam nëbbu Serigne Touba daf ko bañ ba ni lépp lu ñu muur ni Serigne Touba fa tey kër yi nga xamante ni kër lambe la woon nekkoon fa bañ ca seen finance bi te taalibe Serigne Touba yi ci ñaari weer ñu def te ñaar téeméeri millions ak fukk ngir jëndal ko Serigne Touba. di nuyu di leen dalal. sargal ci sama tur ak turu sëñ xabbaan sëñ Fadal ak sëñ Sharif ak sama rakk yi fi nekk yépp sax sa ñoom maa ngi am mbégte sëñ Muntaxa Mbàkke sëñ Muntaxa Mbàkke yëpp wóor lu ma ne am na mbégte nangul ko sëñ Tuubaa ndax dara ci ndax sëñ Tuubaa du ko gerte Pape Gora ñu ngi lay nuyu fi la sant yaa wax ci turwaa Cincinnati ndax fii ñu ko defee tey fi la sëñ Tuubaa mujj a jullee takkusaan dem njaaleen del siwaat ko ba bi ñu ko indee Tuubaa ay bant lañ fi sampoon kon lii ma wax ne sëñ Tuubaa géddul lii loolu firnde ci yéen waa Cincinnati nag bala may egg ci ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen sant li nga ko waxee rek Pape Gora la yëf yi amul ndaw amul mag amul géer amul loolu yépp sax jëlu ñu ci agsi xam nga ci dara ndax magoo fa wante pas-pas mbir mi rek li tax ñu bala foo taxaw ñu bala fa mat laa jur nga bàyyi di la wax am na noo xam ne bu ne demee woon lu ko dem kon jëf yi li ciy maye dara mooy nga am pas-pas ak fit nag waaw ndax boo yoxe xee moom doo sori euh, muy foo xam ne bariwuleen nga wax ne ci ñaari weer la ndegam mat na koy ñaari weer yi tamit bés bu set lu ma set dugg yónnee nga wax ko te ñun de mosuñu koo yëpp mosuñu leen koo sant wante damay jàpp li ma wax rek nag la mooy sëñ Tuubaa buy xeex boo ko boo ko tuddul taasoo ko mën nga koo sax tooñ ndax afawtu anil a'daa'i turran li wajhi man nafaahum li ghayri sarmatan lastu at faw daf ne moom jéggale na du sax défendre te toujours damay wax ne li tubaab yi di wax wala militaire yi l'attaque c'est la meilleure façon de se défendre boo boo mënta attaqué boo mënta songu sax dangay boo mënta défendre sa bopp sax lu bon bon njëkka la songu ndax ki nga ki lay songu si duutu la tal mais sëñ tubaab nee na du ko def sax far moom wante nag boo ko fekkee mu toog nga tooñ ko ci lu mu ma doon bu dee jëmmam amu ci soxla ndax lu ne tubaab bi woon nañ ko ko loo defewul rek woon nañ ko ko waaye yàlla nag saa boo ko ci tooñee moom mooy jógal boppam dégg bi ko sëñ Moussa Ka di wax tàllal ma say loxo ne may sa yàlla loola dafa songu kooku am na keneen ci njaareem it bu masaan wax ne ko yàlla lépp lu ko nit masa boole tudd ca yàlla tudd ko ca kooku moom moo jëlal boppam physiquement défendre ko bopp loo ko def ci boppam nag moom mën na laa baax wala mu muñ ko daf lay bokk ci nattu yi loolu moo tax képp koy wax ci moom boo koy wax te muy dëgg ci yow mën naa metti wante bu ko jëlee jëlelee boppam dootoo ko yëg ñëw naa Chicago ne leen sëñ Touba na kër gi lu ne dégg naa ko saaga tëkku faral tëgg sax dem na bañ ne ko tàggee ko ndax xëy na booba pex yi jeex na xëy na buñ tàggee li ñuy wax kuñ tàggee nga dee euh, wante booba tey tàmbale ba metti woon na nag ndax dañoo defoon ne sëñ Tuubaa lan ko engagé te waxul la ko yaa ko defal sa bopp mën na cee yéex wallu si te bu boobaa da am problème waaye wallaahi dañ koy wax jëmmam rek a tax waaye nag moo ko jëlal boppam tëgg yu ne dégg nañ ko wante defe naa am na ñu ci xam dara du ñun la rek sëñ Tuubaa tey jii nag yenn waa Cincinnati li ma wax de sëñ Muntaxa dana ko jox sëñ Tuubaa te dana ko nangu te dana ko jàpp mais yéen ubbi bunt bi effort la bu rëy a rëy moo tax euh, li nga wax ne fit dëpp ci laaj mu al azm mooy détermination ak fit yàlla dafa wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko fasbir kama sabara ulul azmi damay wax ne ndax yonent bi sax ulul azmi la bokkoon parce que yàlla daf ko ne bokk ci mu ñu te ñoom ñeent lañu ñu de te yonent yi 313 la ñu yi nga xam ne ñoo feeñ kon ñeent la ci yàlla wax ne leen muñ leen te am muñal yonent bi sallallahu alayhi wasallam am détermination comme ñooñu ñeent comme détermination moo may sëñ Tuubaa li mu am loolu mooy fit ak jom ni nga ko def nii ngeen ko defee kon fee ngeen am tey muy barab boo xam ne lislaam taxu ko woon a jóg bu fekkoonte ne kër la rek wante def foo xam ne leneen la ko taxu ju bokk ni nga ko waxee léegi lu bokkut ak diine lislaam ngeen jëlal ko ci seen biiru dëkk nga xam ne waxu leen ku ne ji ku ne am ci yoon te amu leen ko ngeen def ko delloo wan ko sëñ Tuubaa xe wan wan ko ko ne ko kat nun kat yaa ko sunu noo ngi nii kon damay wax ne benn jéego la fa kon jox ngeen sëñ tubaa loo xam ne tey dalal na xelam bu fekkoon te ne xëy na sax meram xëjut ñun waaye mën nañ saa jàpp ne bu meroo nit xam ne giif la te yéen yéen a ko giifal te damay wax toujours ne man du ma woote awa wàll yi du ma ay karaat affaire yooyu sax aw ma ci problème boobu wante lu ma ci wax keroog ba mu waxee ne sëñ tubaab jant na ko bu fekkoonte ne seetaan nañu nëgëri duñ fi nekk ndax pexe noonu ak pexe ñi xamul sëñ Tuubaa wala sunna te nag li ci gën a yéeme ñi nu ko seqal ñu tuutee ci wax mu mel ne kon maam Mor a doon wax te man mosu baa ci sama bopp su la may lijjantil sama bopp kenn ko yëg waaye lu yàlla def lu ne gis nañ ko tey kon sëñ Touba li mu daj ci noonu ñu won ko ci doole ci physique ci wax ju ñaaw lu nañu wax ko ci àdduna ngir noonu mais lu bon bon bon loo xam ne da nga koo def te yow tuddoo sax wax waay waay waaye loolu def naa yomb na nag buñ la ci waxee ci sa der amul problème kooku du daal moo tax dama daan wax de toujours avance avant lu bari ci ay at yi gën a yi may yi may nekk ndaw wala may nekk ci liggéey mësuma am problème nit wax ma lu ñaaw fu ma mës nit mësaa wax lu ñaaw damay mer du ma lekk ndax damay defe ne li kenn du ko def waaye dem naa ba fi ne boo ma wax bu ma déggul lu ma naqari damay provoqué pour am lu ma naqari parce que daf may jëriñ xam naa ci dara bu baax ñi nga xam ne tamit li may tudd ci fara géwél fara fara tëgg xam nga fara tëgg ci jamonoy teeñ ak ak ak ak ak demeel mooy ki daan rangoon dënn bi bokkut ak géwél ba daan jiitu ca xare ba de dafa am am na différence ni ko waxee bokkul am na géwél boo xam ne moo gën a ñeme sax boobu parce que day jiitu ca xare ba kooku taxul ñuy wax mais faral dëgg nag daan rangoo am dënn bu ñuy yéene lu bon wala dara bu fi kenn fanaan kooku moo ko daan def kooku ba mu déggee tàggee ba mu bañ ko ba mu déggee rek defe na yëf ya jeex na bal ba tàkk na dafa daal di gàddum dënnam rek dem jóg egg na ci sax jàmbaari lislaam man lan laa defal lislaam ngir rek moo tax damay wax ne dafa am ñoo xam dañuy wax ne ku dee ay malaaka yi dañuy nekk ci kaw di déglu waxi ni ñun mënta nekk malaaka mënta wax lu dul dëgg ku la ko wax dalee nax malaaka mi mënta toog nit yoon ma doy daanu ca baar ba dee fa ñu dëkk ne dafa baax malaaka mi ne dafa baax ko mënul nekk loolu moo tax mu ne jàmbaari lislaam ca dem na man fan laa nekk nekk jàmbaari lislaam lan laa defal lislaam mën naa sax ma sa fekki fu may jullee nga xam ne dañoo jàpp ne pexe nit te wallaay bu fekkoon dana daray sama daraa nga ci wala ma wax ci loo xam ne sama boppam bu bëgg a siiw wala feeñ kon bis booba mën naa am mu bàyyi sëriñ bi seetaan te bu seetaanee am na ñu bari pexe Chine ngi fi Inde ngi fi Mauritanie ngi fi Mali ngi fi fu nekk ngi fi ak Casamance ak Bund ak affaire kon am na ñoo xam ne foofu lañ jàpp ne lu ne nga fa mais sëñ Touba li ko yàlla defal lépp loo xam ne moo tax kenn du la ca mënal dara te yàlla seere na ne duñ wax mukk ci àddina wala ñu een een sax duñ ko def nit képp ku ñu wax dara wala ñu amul ñu ca la muy def sëñ Touba rek a tax ak yoon yi wala lislaam mais bu ñu ko def pour perse jëf yi suñu bopp loolu moo tax li may wax yéen ñii di ay communicateur ñeent dañ wax nga am na ko léegi danañu am faculté communication parce que éthique ak morale surtout sax boo nekkul journaliste nga xam ne sam njàng sax soriwul mais boo demee ba jàng ba sam njàng sori dafa am dafa loo déontologie dafa am éthique ak morale loo xam ne nit ki ñun moom la ñu bëgg a defee faculté communication boo xam da ngay jàng ba am parce que euh, euh, euh, journaliste mooy ki jàng ba am diplôme mais nag dafay nekk nit koo xam ne ku cultivé lay doon dafay nekk koo xam ne aussi dafay dafay dafay dafay nekk intellectuel bu mat waaye parax parax tël tël boo di ci wax loolu du dara te am na noo xam ne am na noo xam ne bu ñu demeewul woon dana bari lu lu feeñ loolu mais nag noonu nag la mën a demee kon li mu bëgg a wax mooy defal ngeen sëñ Touba li ko neex sëñ Mountakha itam bëgg na ndax xaw ma de lañ koy jox mu di ko jottali sëñ Touba moo xam waaye lii moom wóor ma ne dana ko jottali te bu ko jottali sëñ Touba na ko loolu moom xam naa ko te pourtant xëy na lu ne lañ ko jox waaye lii daal moom wóor na parce que da ngeen ko fajal koo xam ne eh, xëy na sax manees naa wax ne naral waaye neexu ko woon ndax lépp lépp buñ koy tudd yàlla ak yonent bi rek tax mu mu ko mu di ko doyewul dara leneen feneen kon fu ñu ko tudd ca loola war nañ faa daw lu wóoteek yàlla ak yonent bi wax naa leen ne li lii nag léegi lii benn rek la sàllaw du ngeen ko maasale fu bari fu ngeen fu ngeen ko bëgg foofu rek insha allah ndax liy tax nit def ko qualité yi tax nit def lu mu fa mu bëgg a dem alazam boobu mu ngi ci yéen nit koo xam ne dencul alal dencul lu ko doy wëlbati ku jël alalam yëpp attan koo def ci loo xam ne fa mu ko def sax du am réew mais kooku dañ missionnaire la dafa am lu ñu ko digal mu di ko def moo tax ñun tam sax loolu ngay wax ci loolu ñun foofu rek lañu nekk dañuy dañuy taaba taaba ni tout le monde di taqale mais yàlla def na loolu yëpp it barkeel nag lu ñuy defe nag ci wàll boobu lañ ko def waaw te dara du ci taxaw léeg-léeg sax nit defe ne dañoo yor ay milliards deful noonu yor ndax loolu lan mooy milliard ak lu koy dajalee lan di jëriñ dañoo def ne loo bëgg a def nga def ko rek ci sa jàmm ci sa teeg ba kenn kenn du la ci géttal kon nag yéen itam bu leen jóg ci loolu def ngeen loo xam ne tey seral na xolu sëñ Tuubaa te na mu assumé woon ba may wax ne moom jadd na ko te boobu lu ne mën na ma caa fekk ndax bu bu ne woon kat man kat gédduma danaa am problème bu rëy waaye wóor nu ma ne na ko ci yow jëm ndax lu bari xew na fi loo xam ne ña ko doon wax ña ci doon def ak ko ci ndax defe ne waxi caaxaan la naa ne rëccu ko te danañ ko gën a rëccu kon loolu moo tax seen bés bii ak lii ngeen def tey fii ngeen ko defee itam ak seede si ñu ci def mais def naa ne loolu firnde la am na loo xam ne jërul nekk wala yuy dem ci asal asal ko suuf mais da ngay jàngat waaw sa tab góor loolu mën nañ ko nag xanaa bu dul wàll yi itam mën nañu jàngat tamit ndax kat maa ngi fàttaliku sëñ Moutada ba ma yabalee ak maa ngi bay caam waxoon ne nañu fa ubbi nañu fexe ba ngeen di def fondation loo xam ne mooy dangeen ngeen koy carrier ndax mu mën a nekk lu tege ci yoon foofa ñoo ko nëkk nag te bariwuleen fii lii tamit ëpp leen fa dem te teewal lu ñëpp jàmbaar mais dogu dogu su ngeen ko defee rek lépp lu ngeen bëgg moo tax ma ne lii ab tàmbali la parce que Chicago googu dafa am histoire boo xam ne fokk sëñ Touba lu mer mu mu fa jógee rek danoo mën a day day feeñ Chicago sëñ Mouta da nga ko waxal sëñ Mouta laa ne ko dafa am benn esthétique benn musée ba fa nekk nga xam ne bokk na ci gën a mag ci àdduna dafa am ko fa fay benn sët benn photo sëñ Touba tableau sëñ Touba fay ko vingt ans pour ñu exposer ko te boobu murid yi xamaguñ sax foofu mais dañoo bind ca suuf ne kii leader la ci Afrique koo xam ne tubaab yi dañu koo faat bi sëñ Mouta laa ñëwee New York defe naa ay 88 91 yooyu ñu ne ko ñu wax ko loolu mu daal di jël billet ànd ak ni dem ba mu demee ñu yóbbu ko ci musée ba ñu gis fi ñu photo expose photo sëñ Touba ñu bind ci loolu sëñ Moutalla woo directeur musée bi ak ñëpp nekk ñëpp génne carte d'identité ne leen man 1920 laa jur te moo ma jur kon 1895 demut bu demoon kon du ma jut ci lañ soog a dindi lañ fa efface kon foofu histoire la kon ku fay songu sëñ Tuubaa xamoo ko bu ko defee nag loolu moo tax ñun lii dafa rëy ci ñun dafa rëy ci lislaam mais dafa rëy ci aussi ci sañ tubaa yoon ci yoon murid comme ñu ngi leen di ndokkeel le ci turu sëñ Muntaxaa ndax ñun de dañoo ko waxoon ñoo waxoon ne lépp lu ñu ko fu ñu gis dara duñ ci xaar ndax nag ah, nit ki bu fekkente ne xanaa nag day bañ ñu di ko xas mais day def xanaa xëy na nit du wante nag bu fekkente ne wax rek la yàlla sax nee nañ ko da ngaa am doom yàlla ñu bind nit ñi dangaa am doom mais nekku fa di kii wala neexoon bala ngaa daaneel moom foofu mais dafa nekk di weddi di weddi aw ma doom li may amee doom nangam nangam wax loolu mënoon na ko jëmbañ a fekk donc lu dul loolu keneen sëñ Tuubaa mais lu nañu wax ko yéen bi sallallahu alayhi wa waxi noppi nit ñu baax ñi sax bu ñu la doon limal kenn ku ne liñ la wax tey yéen da ngay kon nag yéen am leen fit te nekk ci lool mais nag nit bu gëmul fit nag dafa laaj sa bakkan te muy dëgg nag waaw moo tax lii ngeen def loolu bu leen ko may de alance mu boobu moo ko may nit fit la ak détermination bu ko defee nag ci sama tur ak suma turu rakk yi ak turu sax ñi fi nekk ñëpp mooy ñi nga xam ne ñëpp ñoo fi teew tey mooy ñi jóge Allemagne ak ñi jóge France ak ñeneen ñu mu mën di doon ñooñu ñëpp ñu ngi leen di euh, sant ci seen tur ndax lii àddina bi rek ngeen ko defal waaw lislaam ngeen ko defal moo tax damay wax ne euh, boo dee xeexal lislaam du wax man bi ñu daan am na daanaa fekk ay ndaje yu bari ci biti mais mosuma d'accord ci ñuy saboote naan kii ab yéefar la kii nangam nangam dafa wax yonte bi sallallahu dama ne déedéet nit bu la tooñee ci xam-xam da nga koy da nga koy tontu ci xam-xam bu la tooñee ci xel da nga koy tontu ci xel bu la tooñee ci xol na nga xam ne daf laa mere rek seetal loolu ca ne bu la neexee nga xeexee la mais bu la nit tooñee ci xam-xam nga di ko fayee ko ci xol mere ko di ko gëdd ak di ko saaga mais kooku da lay xeeb parce que daanaka yow xamoo loo loo def lu dul violence nga ko mën a defoon moo tax lii ngeen def nii mooy wax ji jërul woon sax fayal ngeen sëñ bi ngeen ko. defal ngeen ko lëm bëgg te loolu mënoon na caal tukkee kon yal na leen yàlla fay ci barke sëñ Touba tam ànd ci nag ngeen booleen na ci nag waaw booleen leen parce que yëf yi nag liggéey la laaj waaw liggéey la yéen a ko def te kenn waxu ko yéen a ko xalaat sunu rakk ya fa nekk ak sunu yëpp ngeen xam ne yëf yi noonu la de fu ngeen mën a nekk lu la ngeen am ci sëñ Touba moom téye leen ko def li dugal leen ci seen gaal ngeen tëj ko ànd ak taalibe yi nga xam ne ñooy wutal seen bopp parce que li nga wutal sa bopp moom kenn mënuloo kenn mënuloo ci mënuloo ci la lañ la may nag wala ñu abal la ko wala nga bokk ca kooku nag du njàmbaar kon ñoo ngi gënal ñëpp di leen dalal fii nga xam ne li tax ñu wax ko tam fii dañoo gis ne fi jamono bi toll kenn ko ne mën naa toog fu yaatu kenn ko ne mën naa mën naa mën naa soreek sa moroom te duñ am benn jafe-jafe loolu moo tax ñu taamu ne nañ ko ñëw te barab bi tamit lii dafa sax lii daf ci dafa lii sax budul woon dara war nañ ko mën a defe si fii parce que li ma wax la la lu tax ñu tàmbali rek ñu nodd ci barab boo xam ne sëñ Touba fii la mujj defee loolu tax ngeen indi ko ci barab bi ni ko ni ko sëñ Abdourahmane waxee doyen waxee ci ci Daarul Alim bi nga xam ne moom la sëñ kon loolu lépp dafay dafay dafay dafay am lu muy tegtale dara du am hasard loo xam ne day am loo gis rek boo ko xoolee ba ci biir am na lu ko lan kon soxna yi yéen itam ñu ngi leen di gërëm di leen sant ndax lii ngeen di def fu ñu gisee dañuy gis ngeen di def lu ngeen man ak lu ngeen mënul ànd ak ñoom kenn du leen ci man kon yàlla na yàlla fay yàlla na yàlla def jàmm jërë ngeen jëf.